tey intersyndicalu kudd bi nekk nii toog ci table bi ñoom ñëpp di ay kàngam di ay secrétaires généraux ku ci nekk yor sa syndicat ñoo woote woon tey ci ci COUD pour waxtaan ak presse bi gannaaw bi nga xam ne def nañ diagnostic bi gannaaw bi nga xam ne ñi bokk ci communauté universitaire yëpp joxe nañ seen kaddu tey intersyndical moo doon joxe kàddu liggéeykat yi kàddu liggéeykat yooyu nag li ci commencé mooy ñaaw lu yàqu-yàqu yi am université gannaaw bi nga xam ne manifestant yi le premier juin dugg nañ ci biir université bi caxat caxate ko lakk ko yàq ko dem seen yoon muy lu ñaaw muy lu tiis parce que dañu bàyyiwul dara ci yàqu-yàqu yooyu ñu ràññee ci ay bureau yu ñu lakk bureau yu baree bari te ci bureau yooyu bureau yu gën a mag muy bureau kilifa bi ki nga xam ne moo jiite kër gi di bureau ki jiite liggéeykat yi ak service yi yëpp di bureau ki yor kooparu université bi kooparu cour bi donc des na yeneen yoo xam ne li mu ma ko mais bureau yooyu ñoo ci gën a fës nekkoon ci direction bi yàqu-yàqu yu li mu jur mooy service cour yi dañoo bari te nekk fu nekk ci campus bi mais li doon tax ñuy jokkalante mooy téléphone mooy courant mooy internet mais yooyu yëpp bi safara si ñëwee dafa taal lépp ba service yi mënatuñ jokkalante mënatuñ liggéey ni ñu daan liggéeyee li ci tegu mooy oto yi nga xam ne ñoo doon assuré dem ak dikk liggéeykat yi ñuy xëy si heure di ñibbi bu jotee oto yooyu bis yooyu kaar yooyu dencee cee lakk lu mot juróom-ñeent comme ni ngeen ko gisee ci safara si biñ ko wonee juróom fukk ak ñeenti oto yoo xam ne liggéeykat yi ñoo ko moomal seen bopp def ay prêt dem ci banque yi jëndal seen bopp oto di ci liggéey si di ci yóbbu seen doom ñu jàngi école di ci dox seeni soxla kër ñu laa ñu taal leen lakk leen euh, ñu ne à loolu aussi am na à part loolu aussi am na ci biir campus bi ci ñaari at yi dangeen gis ñu def un campus vert campus boo xam ne dañu suuxat gàncax bi def ay espace mu rafet loolu yëpp ñoom bi ñuy manifester dañ doon dagg garab yi di yàq di yàq espace vert yi ba campus bi boo ci duggatee na nga doon bëgg a toogee féexlu bëggatoo sax yàgg fi da ngay bëgg a waaxu dem sa yoon ñu ne loolu dafa jéggi dayo te pour que ñu mën a nekkaat nañu nekkee woon il faut mu laaj defar comme dafa laaj defar nag ñun toog def seetlu ñu ne ah campus pédagogique conseil académique bi mu réewee ñoo barka démb dafa ne naam njàngale mi dafa war a wéy ci université mais ni muy wéyee mooy ñu jaarale ko ci xarala yu bees yi internet bi bëgg fu étudiant nekk nga mën di jot say cours mais dootuñu woo étudiants yi ñu ñëw ci amphi yi ñu leen di jàngal ñu ne comme ñun waa COUD suñu sociale bi ñuy def dañuy gunge pédagogique bi jàngale te ñu nee nañ woowatuñu étudiants yi kon ñun itam soxlawul ñuy ubbi campus bi parce que buñ ubbee kenn du fi nekk ñu ne temps boobu nañ ci profito ñu defaraat kër gi di ci woo nag état bi nguur gi mu jàpp ci parce que li fi yàqu mënuñ koo defaral suñu bopp nguur gi na ci jàpp indiwaatal ñu ay bis na ci jàpp ñi nga xam ne dañ cee yàqule perte seen oto ñu rembourser leen ko muy indemnisation nguur gi na ci jàpp ñu construiraat tabaxaat bureau yi ñu lakk équipé waat ko nguur gi na ci jàpp indi ñu sécurité parce que loolu yëpp bu amee te ba tey sécurité amul un bon jour mën na delluwaat na mu nekk donc sécurité bi daal vraiment tiis nañu euh, ñoom nag ñoo xam nañuy tojee seen bopp janax duñ leen wax ne ay policiers ngeen ñuy indil mais sañ lañ leen wax ne xool leen seen i pexe ya ngeen di def pour que kuy liggéey seeti université nga nekk ci jàmm loolu moo taxoon ñu woote tey et ñuy feddale suñu coloré suñu ànd suñu jàpp autorités yi nga xam ne ñoo fi nekk muy recteur parce que moom mooy suñ PCA muy directeur du COUD parce que mooy suñ directeur te nag ba mu fi nekkee ba tey gisuñu lu aay lu mu fi def ba mu fi nekkee ba tey ci góor góorlu rek la nekk ba mu fi nekkee du tey am na jàmm ak travailleurs yi moo tax ñu ne tey bés la pour ñu manifeste suñu jàppale suñu coloré te itam di ñaan état bi mu jàppale ko pour mu gën a taxaw donc sama gars yi lii la ñu amoon pour wax leen ci gannaaw bi ñu ko waxee ci tubaab ñu ñëwaat ci ci olof bu setul mais defe naa comprendre ngeen li ñu bëgg a wax. traité liggéey fii ndax ngeen fas yéene euh, ji nga xam ne liggéey bi dafay daal di bon université dafay euh, sëñ bi dinaa la jox ñaari explication d'ailleurs en temps normal période bii dafay fekk ñuy waajal vacances université waroon tëj ñi ñi dem toog ba octobre ba novembre ñu ñëwaat d'ailleurs ñun suñu décision tooguñu rek jël ko dañu toog ba ñu ne conseil académique ñu yor wàllu njàngale mi woote nañ ndaje ba ñu wootee ndaje ñu xaatim ne njàngale mi naam dina continuer mais ni muy continuer mooy jaarale ko ci xarale yu bees yi ci internet bi maanaam étudiants yi dañuy toog seen kër di jot seen cours yi ci seen i téléphone ak seen i ordinateur ñu ne comme nag loolu moo am <laughs> ñun kay waratuñu wax waxu ubbi campus bi parce que buñ ko ubbee it étudiants yi dañ fiy nekk di fo rek mais nekkewuñ fi pour jàng te ñun dañu soxla temps pour lépp li nga xam ne yàqu na fi ñu defaraat ko donc toog boobu ak ñàkk ubbi boobu pour defaraat campus la travailler waat defaraat bureau yu ñu lakk fexe am xool ba xam nan la ñuy amee ay oto fexe xool ba xam nan la ñuy indemniser ñu yàqule fexe xool ba xam nañ la ñuy gën a encourager ak euh, motiver euh, personnel bi nga xam ne ñun ñi ñoom la ñu jiite xanaa déet wax si un wax les franchises maanaam euh, takk der yi fan la ñu war a am ngant yi ne dinañu dugg ci biir wala duñ ci dugg ndax yéen na ngeen intersyndical bi dafay laaj léegi nguur gi euh, diggal wala jox euh, autorisation takk der yi ñu dugg ci biir campus social waaw loolu biñ ko waxee nee naa affaire franchise universitaire ñëpp d'accorduñ ci ne nii la war a demee am na ñuy naan dafa concerner campus bële kese pédagogique bi fi ñu ñi di jàngee am na ñu ne concerné wul campus social am na ñu ne campus yëpp la concerné donc un débat bu ñu tranché wul la mais ma ne suma gars yi toog dañu ne dundu bakkan suñu bakkan yii moo ñu gënal nekk fi di werante naan war na wala warul li ñuy laaj mooy na état bi def lépp pour sàmm suñu kaaraande ci biir université bi moom moo xam na muy tojee boppu jana mais ñun duñ fi nekk di werante bokk na ci bokk ci dafa war a ñëw warul ñëw sécurité la ñuy laaj état bi nag moo xam nan lay def pour ñu am sécurité parce que lu ne jéem nañ ko ñun lu ne jéem nañ ko pour am suñu sécurité bopp mais à chaque fois day sooxe directeur bii ñëw changé na fi ñetti chef de sécurité di wut pexe rek pexe bu baax pexe bu ñu ñi amee jàmm pexe bu am ñu université amee stabilité mais li ñëw keroog xam ngeen ne force de de de force de kii yi sax bi ñu ñëwee am na am nañ jafe-jafe pour régler ko donc du ay loxo neen ñoo koy régler ñoo koy àngu ñoo koy satisfaire état bi moo ci war a dugal loxoom donc loolu la ñuy wax loolu la ñuy demander parce que ay nit lañ. ay kilifa lañ ay père de famille lañ ci ay ci askan wi lañ bokk ñun ñu ñu fiy xëyee guddeeg bëccëg donc dañuy laaj te loolu nag vraiment du lu ñuy du lu ñuy négocier du lu ñuy négocier la sécurité c'est quelque chose qui nous tient à à cœur quelque chose qui nous tient à cœur donc vraiment lu soxal la waaw